asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese barke bi mal xiyaam al akbar gaa yi seetaan na ëppan presu Balla Gaye bi neex na am na solo am na jom Balla go bàkk na gauche bàkk na droite barke bi mal xiyaam al akbar entraîné nag def na ko ndax entre na ba ñuul kukk xasaw xonn waaw waaw jàmm rek lay indi nag booy ñaa yow tamit ñu ngi lay ñaanal nga indi jàmm fële Balla Gaye nee na non violence lillahi wa ak mbokk non violence Boy Niang waxal say fans non violence lambi kaf la foo ak reetaan kese bëggeel bëggeel amateur te man Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk dama bokk ci ñi làmb du dundal ndax man lamb dama koy seetaan cent pour cent cent pour cent amateur la Balla Gaye wax na message bu am solo non violence non violence Boy Niang yow tamit waxal non violence non violence lillahi wa rasuli ak mbokk làmb ji sunu làmb la ku daan ci réew mi lay nekk ku daan ci mi lay nekk Balla bu daanee ci réew mi lay nekk booy Niang bu daanee ci réew mi lay nekk kon ndànk-ndànk rek nañu def ndànk ñun supporters yi mbër mi luñ ko bëgg bëgg bëgg bëgg nañu def ndànk ndax mu ñuy kurum kurum yi di layam layami di forox forox barki bi mal kaama lakk ba sunu mbër rek lañuy ñuy kon ndànk-ndànk rek Balla bu dikkee làmb ji neex booy Niang bu dikkee làmb ji neex Balla day ñëw bàkku dimanche incha allah le premier janvier Boy ñaa ñëw bàkku ñu bëri bëri bi làmb ji jeex ñu ñiy jëm fii ñiy jëm fële ñu seqaat jàmm noonu la sport taf agréé xanaa xam nga ñun làmb ji mun ko jàppee téye ko suñu loxo dundal ko gëm ko gëm suñu bopp mën naa dem ba raw football bi nga xam ni moom la tubaab yi téye tubaab yi seen football kenn du ko yàq ku ci layam-layame dañ lay ñuus nga jëm ca xaj li léegi ursuli ak mbokk bu nu kenn yàqal làmb ji ndànk-ndànk bëri ko ci jàmm salaam rek Balla ëppan përësam jaar na yoonam booy Niang ëppan përësam yoonam ne xaar yàlla yàlla def ci réew mi jàmm wasalaam